Ousmane Sonko loolu sa reste à quand même à faire interprétation. nee la Madior euh, Diouf mi nga xamante ni nag jamono ji euh, coow mi ngi ci ginnaam la ko waral mooy incident ya daal di xewee ci euh, fi nga xamante ne moom moo di pouponnière bi mu duppee kër yërmande foofee nag. Ah, benn ci nun yi moo daal di fësal ab vidéo boo xamante ni daanaka viral na sur les réseaux sociaux ah, naka noonee rek la daal di la justice daal di dugg ca langue ga ba daal di koy mujjee ah, teg loxo jamono jii ñu waxe génn yéen nag ñeent fukk ak juróom-ñett ci xale ya ñoo ngi ci kër loxol docteur ñuy saytu seen wérgu yaram lu ko mooy nag justice ma ngay enquête ngir mën a xam parents ya fu ñu nekk rek bu dee dañ leen koy jébbal wala sax dañuy xool lan moo ci seen part de responsabilité aussi. waaw mais bi commencé ba parce que nag Sénégal ak loo mën a wax xam ne suñu enquêteurs yi wala suñu takk der yi ay jàmbaar lañu te lépp lu ñu bëgg a lëñbët wala lépp lu ñu bëgg a xam moom yaakaar naa matul leen sax ay ay simili pour ñu xam ko et maintenant cette affaire là bi mu amee je pense que ce matin maa ngi la koy évoquer que ne a trois responsabilités yu mën a benn bi bokk na ci état bu Sénégal parce que naka la ñu mën a nekkee ci réew moo xam ne kat ak li ñu am ci wàllum renseignement généraux et ne ki la di euh, soxna Ndella Madior Diouf jotul wala amul sax li nga xam ne moo di këyit gu ko mën a permettre aussi mu mën a euh, yor ab boo xam ne boo fa demee rajo baa nga fee à côté fi muy sang euh, salon baa nga fee fu muy mhm. maquillé mu ngi foofu donc pour man jàpp na ne l' état devait peut être s'enquérir et sur ce gis nañ même ay télévision yu fa dem def ay reportage donc xoolaat affaire yi xoolaat affaire yi tout donc mu nekk loo xam ne état bi aussi foofu am na ci responsabilité beneen bi it mooy te responsabilité boobu du guléet parce que euh, bu fekkee yaa ngi fàttaliku ci euh, covid 19 bi gis ku war a mën a daal di faj la finalement gis nga problème bi boobaa léegi mujjul fenn tey je pense que beneen responsabilité bi c'est via ki nga xam ne moo di euh, clé euh, di euh, Ndella Madior Diouf est-ce que daf ko demoon pour ut xaalis c'est une question boo xam ne di ñàkk dina ko répondre devant les enquêteurs parce que li may poser question mooy nit kay boo amee doom ak noo ko mën a amee yaakaar naa yaa naan kii kat nii laa ko tuddee mais yóbbul ko nit moom muy xool di ko tuddee Amina pourquoi parce que Amina yor na alal di ko tuddee président Macky di ko tuddee Ousmane Sonko di ko tuddee nangam loolu war nañ ci indi li nga xam ne mooy leeral et que selon li nga xam ne am nañ yi wax ci xam 48 xale yi nga xam ne yóbbu nañ leen dans les restrictions euh, de de li nga xam ne moo di sanitaire li ñu wax mooy xale yi seen dund moo baaxutoon duñ leen faral di toppatoo yaa su ko nappee malnutrition et cetera et tout maintenant nag véritablement euh, Ndella Madior naka lay jëndee responsabilité bu mel ni jël ay xale te joxoo leen ñu lekk joxoo leen ñu naan nekkuñ dans de très est ce que jotuloon aussi moom it mu teg mbir mi suuf mais Amina da ngaa am sa doom yóbbu ko foofu mu nekk fa benn instant nga am nekk ci condition yoo xam ne war nga ko mën a jëlaat mais dem fa mu naan la li ma ci def si xale bi nag ma koy delloowaat mais loolu it lan lañ ci mën a jàppandi je pense des questions éventuelles yoo xam ne devant voilà devant euh, li ñu am ci enquête yenn ci ay xëtu yenn kay xam ne ko mooy ñu fa nekkoon di liggéey ñu bëri dañ koo dugal kenn kat moom euh, nu mu doon yoree xale yi du yoreen boo xam ne yoreen bu baax la et que nu mu doon tuddee xale yi ci yenn tur yi dafa doon ci ut li nga xam ne moo di xaalis donc a des questions yoo xam war na ci mun a répondre beneen bi it mooy ñi jur xale yi di ko yóbbu foofu certainement tey Sénégal am na bërëb yoo xam ne yaa de am na SOS enfant boo xam ne mu ngi fi au niveau du Sacré-Cœur boobu je pense que am na kayit et puis eh, bi a yoo xam ne dañ koy faral dem donc xale bu ne étape bi nga nekk ni ñu lay tegee ak ni ñu lay arrangé ak ni nga nangam je pense que daal loolu aussi war nañ ko gën a xoolaat ñiy jur seen doom yi di ko yóbbu foofu noonu te xam li fa nekk pour man jàpp naa ne ils seront responsables maintenant nag li ñu wax dans cette affaire mooy ñoom ñi ngi jéem a identifier ñan ñooy euh, bàyyu xale yi bu ko defee aussi ñoom ñu enquête leen pour xool éventuellement naka def mais en l'initiative était tellement noble parce que il faudra aussi ñu féliciter ko parce que jigéen ju man góor la même a xaw a diir yi mu doon def via li nga xam ne moo di Ousmane Sonko et tout suite bu mbir mi ñëwee bi ñu génnee ces images weddi ba mu doon weddi mooy mbirum gars yi Ousmane Sonko yi ñoo ko génne alors que demutoon très ci par rapport ak lan moo waral affaire yi ak lan moo ko dundal et tout moo tax état bi aussi war na jël ses responsabilités moo tax Alioune Tine même il évoqué en disant que des mooy état bi war na jàngat mi jël li nga xam ne moo voilà ñu daaneele ko ak Amadou Ba mi nga xamante ni moo nekk ci diwaanu Pastef jàpp na ni nag nguur gi li muy doxal jamono ji yëpp ngir bëgg rek euh, sërxal leen ci ab piège la boo xamante ne bu ñu def lu attention dinañ ca daal di dugg ca boobee nungu sin ba tax na jàpp na ni euh, lii ndam li daal mooy ñu daal di garder le silence te gën a xool ci yan euh, porto la ñuy jaar ba Sonko ko daal di bokk. waaw xam nga je pense que keroog maa ngi la wax ne la en matière de politique tey. Euh, sa xaritu tey mën na nekk sa li nga xam ne moo di ennemi suba et que c'est ce parce que ni ku nekk gisoon na l'affinité euh, qui entre Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko je me rappelle même euh, ci benn meeting bu amoon ak APES ah keroog gis nañ Barthélémy Diaz ñëw toog ñoom ñaar ñu téyante loxo mu ne sama doom day après ñu gis keroog sax gis nañ ko mel Barthélémy Diaz wax ne président boo bañ a coup bi na dem dialogue mu mel ni toujours secret coalition Yewwi Askan boobu nga xam ne bokkoon nañu ko euh, li doon li doon définir seen bokkaay leen la c'était tellement simple mooy ñoom dañu àndoon ci élection locale bi ñu béyee ko ci élection locale dinañ dem ci élection législative bu ñu demee ci présidentielle képp ku ne ma jël sa yooni bopp bu ñu demee nag ba deuxième tour képp koo xam ne yaa nekk en pole position bu ko defee ñu jàppale la mais maintenant dialogue national bi moo dem ba indi fissure bi moo indi li nga xam ne moo di jàppante yi ba gis nañ mbir mi fan la mujj concrètement ñu gis ne fissure am na donc ñoom ñu ngi commencé défendre seen intérêt et beneen wàll gi aussi la participation d'Ousmane Sonko devient li ko euh, euh, dem taxawu ko ma gis fa ñoom Malick Gakou gis fa ñeneen on se rappelle même ces images là nga xam ne keroog Malick Gakou yàlla moo ko musal mais mënoon na fa jëlee leen parce que anam bu ñoo ko dugalee ci oto bi ak violence bi nga xam ne dal na ko ci mu daanu avant yéeg et tout donc loolu bu mu amee ñu gis taxawaay bi nga xam ne amoon na si Ousmane Sonko taxaw temm ne Barthélemy Diaz mii kat li am ba des mooy mooy suñu choix pour mu nekk maire bu diwaanu Dakar waaye hormis choix boobee moom Barthélemy Diaz mooy wéy di occuper poste mairie bu diwaan Dakar te kenn du ko fa génnee moo tax ñu taxawoon ànd maintenant nag dem nañ ba fissure am ci kaddu yoo xam ne Ousmane Sonko yëkkati woon na ko di a un leader boo xam ne demanoon na reerandoog président président nee na ko kat date ah, li nga xam ne moo di ah, en eh, ci ci instance neexul ko danañ ma condamné ba du ma doon candidat il a fallu que Barthélémy génn rek tout de suite parce que il est censé vexé ci par rapport ak kaddu yooyu commencé sànni ay pic maintenant nag toll nañ ci moment boo xam ne ñaari déclaration même si que après boobu déggoo nañ Ousmane Sonko mu génn sax moom na ne yenn wax yi du ci du ci tàddeew l' essentiel mooy nañu focus nañu focus boobu nag par la suite dafa mel ni que Barthélémy Dias bàyyiwul parce que à chaque fois mu génn dafay wéy di attaqué def na benn point de presse ci mairie bu Dakar man maa nga foon mu ne sama doom day li koy génnee kaso sama loxo dina ci nekk benn yoon ba ñaari yoon ba ñetti yoon CREC je pense que devant Pape Ngagne Ndiaye il a confirmé il euh, dégg nañ li nga xam ne moom moom la ci wax maintenant je pense que toll na ci phase boo xam ne CREC gis nga déclaration bi nga xam ne def na ko bi mu demee France aussi dégg nga daal yi nga xam ne daal na ko ci kaw Ousmane Sonko dem sax bay waxal ay militants am naa leen def leen ndànk politique dañ euh, a tourné euh, a tourné de camp maintenant c'est nag maintenant comment faire pour s'en sortir dans cette situation ba est-ce war na mën a inquiéter wala war na mën a tax ñu bokk ci parti Pastef di wéy di àddu ci bile situation maintenant loolu ça reste à moo tax quand sax je pense que boo éviter ñenn ñu bokk ci boobule parti li ñu xamal mooy mbirum Barthélémy Dias ñoom seen yoon nekkul ci duñ ci wax àndoon nañ àndatuñ ni ku nekk na focus ci par rapport ak li nga xam ne moo sa projet buñ ci